salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw dool ziar waa baax a baax. jàmm. waaw ñu ngi sant a ñu ñëw ci place bi nga xam ne daa mel ne euh, ki ñu doon wax Cheikh Poobar ak Cheikh Noble yëpp ñu ngi fi ngeen di jaay ay biisu macha allah ah, ma daan gis fii di fees del ma daan gis euh, fii macha allah heure bi masaan kii xew yi di ngeen di jaay daal nit ñi wër leen léegi nu ngeen gisee corona bi ak couvre-feu bi daal yàqalu leen wala. waaw instant bi de moom wax dëgg ne yàlla moom. Euh, joué na si commerce bu baax joué na si bu baax a baax a baax yu bari yoo xam ne ko doon def moom parce que yi xew yi dañ ko wàññi ak couvre-feu beeg yooyu noonu ñu bàyyi xew yi léegi donc kule yi nga doon jaay dootoo ko mënatee jaay genre ak yeneen ak yeneen daal maanaam joué na si daal am daal ñu ngi ñaan suñu borom gaaw jëlee ko fi daal. ñun kay xew yi ci yi nga xam ne dañ daan yëg bu baax suñu bopp xew moom fi ni nii ci ñun la gën a métti nag waaye yàlla baax na waaye daal li ngeen daan jaay est-ce que yéen a ko jaay. non non non non saa loolu moom xaaj bi sax mënuñ xaaj bi sax jaayuñu ko moom. man dama daan gis fii fees dell ngeen taal micro bi xam nga fii ku jël nangam xam nga léegi ma gis fii amatul ambiance daal affaire bi kon yëg ngeen ko daal. waa yëg nañ ko bu baax a baax yëg. a wàcc bi wala. waaw joué na si joué na si baax. ngeen daan wàcc fii. fii nii dafa waaw léegi bu ko defee léegi kon xam nga ni loolu metti na ci yéen kon. trop trop trop waaw waaw na ko yàlla euh, jeexal rek. kon jërëjëf waaw ok. salaamaaleykum adduna salaamaaleykum waa Sénégal ba tey nee naa la pare guma maa ngi ñëwaat fii ci place Baye Sall TMB Touba Mondial boutique macha allah waaye fekk fekkuma ko fi ma fekk fi ay rakam yu baax mbaa yu sawar yu nangoo liggéey ñoom nag ñu yëngu ci wàllum décoration néeg ay lamp yu rafet yu rafetal néeg macha allah ku ne xam ne ni jigéen ñi dañ koy teewoo léegi ma koy laaj di la nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax Bas ñu ngi lay ziar bi. mbaa yaa ngi ci jàmm. sant bu baax a baax. dama lay laaj question bi mooy couvre-feu bi tëdd mi ak njaay mi ngeen daan jaay nga xam ne yéen ay bagages jigéen rek ngeen yor parfum ah maanaam xeetu jigéen lu jëm ci jigéen nga xam da ngeen ko daan jaay ak ñi def mariage ak yooyu yëpp dañu daan jënd si fii léegi période bi yéen nu ngeen ko do nu ngeen ko gisee ak couvre-feu beeg yooyu ak teel a tëdd bi ak teel a wàcc bi daal ak yooyu ndax li ngeen daan jaay yéen a koy jaay wala ah wax dëgg yàlla mm, sant yàlla bu baax a a baax ndax boo gisee wàññeeku na bu baax daanaka ñun sunum njaay moom lu ci bëri sedd la mm, même période bi même bu nekk doon couvre-feu ñun période bi nii lañ laan doxee kon dañuy gën a doole sant rek ñun moom suñ njaay lu ëpp ëpp seet doon moom ak période décembre bi ginnaaw bi mu jàllee moom daanaka nii rek lañ laan doxee waaye gën naa feeñ daal di ñaan rek si borom jëlee fi feebar beeg yëpp rek ak seen Tuubaa mais macha allah ma gis ne ni TMB day jaay yu mucc ayub en même temps dégg naa day am ay wareek lu ne da koy am. waaw waaw waaw TMB am na transfer de sang am na assurance am na RIA am na MoneyGram daanaka bépp transfert rek boo gis rek TMB am na ko. waaye mais période bi daa mel ni yéen yëg ngeen ko de ci couvre-feu bi yëg ko teel a wàcc bi yëg ngeen ko de waaw waaw teel a wàcc moom feeñ na ci lu bëree bëri ndax daanaka ñun boo daan xool suñu njaay tamit ngoon lay doon 17 heures 18 heures waaye sant yàlla rek sant yàlla baax métti na loolu daal nga xam ne jigéen ñi dañ daan jënd si yu may gis ay loof ak xeet yi yëpp ndeysaan waaw pour waaw te bu ko defee ñoom seen moodu moodu yi bu ñu daan mas di ñëw la ñuy ñëw di ko si fii te ren nga gis ni nin tëjee yoon wépp kenn mënut a génn kenn mënut a dugg dana dana métti dana gën a métti ci yéen ndax yéen sax daan na baax ba moodu moodu yi di ñëw comme sa jëkkër ak yooyu ngay ñëw jënd si yu baax yi dana métti daal ci yéen waaw waaw côté boobu tim mm, wax dëgg yàlla am na instant boo xoolee ne bagage amatul euh, ndax bagage yi dem demuñu daanaka dikkuñu mooy loolu mais ñu ngi ñëw daal ndànk ndànk ndànk ñu ngi ñëw ndànk. macha allah kon ñu ngi lay jëf jaajëfal fii ci nuyu ñu Baye saal bu ñëwee. ñoo ko gisee ne woon noonu ñëwaloon ci marché Ocass doon def reportage bi macha allah ah, nga xam ni ah, bu am solo bi ci corona bi ak couvre bi gis ngeen fi ñu jaar yëpp ak fi ñu dem yëpp ñëpp gis nañ ci seen bopp yëg nañ ci seen bopp damay faral di wax ni 24 actu daal mooy ah, site bi nga xam ne macha allah lu baax lay wone lu sell te yiw nee naa la ñàkk koo seetaan heure la. man bas bari bagage maa wax loolu maa ngi nuyu nag sama xarit yëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu borom télé bi di ko ñaanal jàmm ak tawféex yàlla yokk ko ci barke Serigne Touba borom site bi di nuy soxna Faati si di ballay sa buri sëñ Mbàkke maaram di nuyu Bali Jang ma ci Italie doomi ajindooy Jóob jooju kulim Dioum di nuyu Yacine Fall Chute Labat Fall Cheikh Saw Neex Sow sama xarit yëpp samedi am am di jàmm ku may seetaan estati sinap maa ngi lay béggee di nuyu Afe Jaw ah ah mu baax mi macha allah moom yaa màggal buso di gor mi di géer am jom lool am maanaam personnalité jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala baraka di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou yàlla yàggal ko fi te wér